conseil municipal bu Ngaparou bañ ko sampé ak tay warna am ñenti at waye nak jot def lu am solo ci biir dëkk ba ba manam lu ci cent millions def nañ ko ci réaliser ay mbir yo xamantini pour euh, askan wi la euh, ba def lancement 72 heures culturelles yi te préfet euh, présidé won ko ak autorité yi maire bi nak woné na li nga xamantini ni moom la def lu ci melni bi nga def nañ ci ay ak rek logement Uh, chef de poste bi nga xam ne moom moo fa am ak rek nag daal école yi nga xamante ni uh, jot nañ ci tabaxaat ay classe uh, ci biir loolu nag ginnaaw ba nga xamante ni préfet xool na loolu moom rek rafetu na liggéeyu maire bi ak conseil municipal bi. soo xam ne état dafa ci dërëm ci poste maire bi xaalisu maire bi la ko génnee def ko ci biir dëkk bi. case des tout petits bii ñu inauguré nii dama ne ñëw naa fi weer wala ñaari weer si ginnaaw. bima duggé sax dama ne ndax fi la duggone wala du fi té bima ñëwé gis na né case des tout petit bi ñaar fukki million a juroom ñett lañ ci def té ki nga xamné mo yor xaaliss bi diko fay mu ngi ni tok biñu ñu génnee ma maire Ngapardu de li nit ñëpp mëna a ci mom moy lepp lu muy seex ak yow ci xaaliss lu wër lay nekk lu leer lay nekk té lu set lay nekk moo mané ki ñeme ña woote ne kaay leen xol li ma def li la ci duggal c'est parce que li nga defa da wër né kat li yéne a santone moy bëgg bu ngeen di ñëw jakk ja kenn bu bañu dugg ci ndox mu def canalisation yo xamné ne ji bu tawé juroomi minute fukki minute ndox ma dem na mbeun na buñ koy xalaat xalaat nañ ko fepp mo dess nga paru té loolu moo bu demee moo si gën a nga paru yamuñu foofu ndaxte daal inauguré nañ fa it nag benn case des tout petits boo xamante nii euh, mairie bi ñoom ñoo ko tabax lool nag doon na euh, daal loo xamante ni dina dimbali askan wi bu baax a baax maire bi nag nee na moom li ko tax a jóg daal mooy fexe noo xamante ni euh, commune Ngaparou doon dëkk boo xamante ni dëkk bu neex a dëkk. waaw loolu sant yàlla la jëmale ci ñi nga xam ne ñoom lañ ma boole lool ñu nekk conseil municipal bi Ngaparou am si ñoom confiance. boole leen ak ñun ñu nekk ci mairie bi ñuy sotti ndoo di xalaatandoo bi ñu génnee suñu élection 16 avril 2009 dañu waxoon ne benn triangle lañu am mu jëm ci wér-gu-yaram njàngale ak cet gi environnement yàlla suturaal nañ ba am na lu ñu ciy def waaye yeggalaguñu ci kanam lañ ko bugg a yóbbu